xiraan nag mooy ñetteel bi xiraan baat bi day firi lëkkale maanaam boole maanaam it moom la ndax mooy nga yéene benn yoon aj ak xumra nga xam ne ñoom nga yéenee ndoo ba tey it mën ngaa yéene xumra ba noppi doora yéene aj teg ja mën ngaa yéene sax xumra ba tàmbali ay ponkam wëlbatiku nag yéene aj teg ca loolu la ñu tuddee irdaaf waaye nag boo xasee jëkk yéene aj moom ba noppi doo mën a yéenewaat xumra teg ca ndax aj gi moom day farata ëpp doole xumra mi sunna xumra mi sunna moom lañ mën a yéene gannaaw ba nga yéene aj teg ci moom waaye mëneesuta yéene aj mi farata ba noppi wëlbatiku di yéene xumra mi sunna da nga leen di boole yéeneendoo wala nga yéene xumra ga ba àggal door a yéene aj ga xiraan moomu nag boo ko defee itam jenn jëf rekk ngay jëf maanaam aj ak xumra kenn ku ci ne am na wër kaab ak boppam bu di aj sax moom yaari wër dana ko di am muy tawaaful ifaada ak tawaaful qudum bu koy jiitu xumra nag moom bu dee moom benn wër lay am dox safa ak marwa it kenn ku ci ne am na ko mu ne nag boo xiraanee mooy yéene yaar yépp da ngay wër rek wër boo xam ne umra geeg aj gi ñoo koy bokk doo beral kenn ku ne ak wëram dox safa ak marwa itam da ngay dox rek benn yoon mu yóbbaale yaar yépp doo beral kenn ku ne doxuk safaak marwaam nga xam ne xiraan ak ifraad ñoo bokk jenn jëf li nga wutee rek mooy xiraan moom ndegam ci yéene ji nga yéene woon yaar yépp dañuy jàpp ne yaar yépp nga am ifraad nag moom ndegam aju kese nga yéene woon boo ko defee ba àggalit aj rek nga am moo tax bu dee ci yoonu Maalik ñoom ñi ko taamu ñu bëgg boo ko defee ba noppi nga teg ca xumra daal di am yaar yépp nag aj ak xumra ba tey nag xiraan ak tamatu moom addiyu da cay war ku ko def te dëkkoo màkkaak la ko wër dañ lay defloo addiyu ifraat nag moom addiyu du ci am waxrim na nga armale minal miiqaati ci miiqa bokk na ci waru gar yi nga armale ci miiqa foo mën di bàyyi ko ci goxi àdduna bi rek am na foo xam ne fal ñu la digal nga armale fa nga armale foofa nag waru gar la boo weesoo foofa ba noppi door a armal faaw ñu alamaan la muy tur deret lu may nag nga weesu ko xam ne weesu nga ko laata nga armal nga wàññi ko ba ci moom door a armal kon moom doom alamaan waaye boo xësee weesu armal rek soo wàññi ko waatoon ba ci moom it fekkoon armalul nga rek moom ba nga ko weesoo daal di war a fay alamaan bi du mat talbiyatu topp wax labayka wax labayka dañ koo ñëwoon ci sunna yi waaye waru gar la su fekkee ne waxoo labayka benn yoon ci biir aj gi da nga war a fay alamaan boobu su fekkee it ba nga armalee da ngaa bàyyi lu yàgg yàgg yàgg yàgg door wax labayka ji it daal di war a fay alamaan bi su mat tawaafu topp wërga lil xudóomi ñeel dikk ga màkka tub diya da nga ko feeñal la bind fekk cosaan la tub diihi rek la woon waaye loolu daa bari ci way wi tawaaful xudóom daañu ko wax tawaafu ziyaara mooy wër bi ngay wër booy door a ak si màkka nuyoo ko kaaba gi soo armalee ci miixa te bi nga agsee màkka taxaw arafa jegewut lool ba nar laa raw kon waru gar la nga wër kaaba gi wërub nuyoo jàll dox safa ak marwa bala ngaa dem arafa boo ko deful rek daal di war a fay alamaan insilan na nga wàcc insilan bil mashhari ci al mashharul xaraam li laylati nahari ñeel guddi tabaski ga dafa tudd mashar rek waaye musdalifa moo ko tax di wax day wane ne boo bàyyi ko arafa gannaaw ba jant ba soyee ñëw mustalifa wàcc nga mustalifa waru gar la fanaan nga sax moo gën waaye soo yërtu fanaan na nga wàcc ba sippi say bagage boo ko deful rek daldi war a fay alamaan bi buñ taxawee arafa ba jant bi su as ndiir buñ fa jullee timis dañ fay bàyyi ko ñëw musdalifa bu ñëwee nag julli timis teg ca gee fa saasa te gee ga ñu wàññi ko ñaari rakka boole gi yaari julli yooyu na koy boole moom ci wari gar yi waaye daayi su ko ci boole xasir na nga jemp awi liq wala nga watu bokk na ci wari gar yi bu dee góora mu watu mbaa mu jempu watu ga nag moo gën bu dee jigéen nag moom jemp rek lay def jemp ba it tuuti lay dagg ca kawar ga lu tolloog kóolu baaraam rek jigéen nag araam na ci moom mu watu am nel góor da watun am nel moo gën ci moom góor na bu watuwut am nel bay jemp day jemp jemp bu gàtt gàtt mooy day dagg lu bare bari dagg lu bari ci kawar ga war mi te nga sànni jamran jamra fi minan ci minan sànni jamra yi ci minan moo xam day jamratul xaq ba muy sànni bi ñuy sànni ci bisu fukkeel bi ñu di ko tuddee bisu tabaski fii mbaa boog sànni ga ñuy sànni jamra yi ci ñaari fan ñi nga xam ne moo sës ci bisu fukkeel bi jamra yooyu yépp lu ci nekk waru gar la su ko bàyyee rek war a fay alamaan wa bit te nga fanaan layaa lir rami guddi sànni ga fii xaa ci minan bil mu naa ànd ak may bëjee bil mu naa boobu dala ci ñaanal yàlla may la say bëgg-bëgg day wane ne am na yaari guddi yoo xam ne nga fanaan ko foofee ci minan waru gar la soo ko deful rek war a fay alamaan mooy biñ ne tey la fukkeelu fan ci weeru tabaski boo defee tawaaful ifaada ba àggal nga war a jàll fanaani minan guddi googu muy guddi fukki benn mu ne su ko waa ñàkk fanaan ak guddi ga ca topp muy guddi fukki ñaar guddi ga ca toppaat nag moom ci sa coobare rek la la gën mooy nga fanaan ko fa waaye bu la neexee boo sànnee bisu ñaareel ba jamra yi rek mooy bisu fukkeel ak ñaareel nga daal di gaaw génn mi nan boo sànnee bisu ñaareel bi nag te nur laa fanaan ba sànni bisu ñetteel bi da ngay daal di gaaw génn mi nan bala la faa jant soyee waaye yaari guddi yooyu moom bu ko fanaanul mi nan mbaa muy wax a dikk ba gannaaw bu guddi gi xaajee la ñëw rek daal di war a fay alamaan daa wax ni wargar yi fukk lañ daal di wàññi yooyu waaye ëpp na yooyu waaye nag am na kaset buñ jagleel aj boo xam ne wàññi nañ ca warugar ya mën nga caa dellu fii tarki kulli shahiratin nekk na ci bàyyi bépp warugar min xaa ci ñoom damun deret warugar yim tudd ak yom tudd ñoo bokk àtte boo ca bàyyi ak gi dana baax waaye da nga tuur deret muy alamaan bi al iblu gëléem alaha mooy gën jaa kawe seen wal adduna la gën a suufe alxanamu mooy gàtt addi moom mooy judi kër yi rek la ca féete kaw nag mooy gëléem nag topp ca xarab bay ñoo féete suuf saa yooyu def addi rek xamal ne foofa lu ëpp ndawal rek bu dee ci foofu moom la ñuy gën a taamu te kon gëleem lay doon nag topp ca xarab bay féeti suuf moom nag daa mel ne waxul li ñu tuddee yeweeku yeweeku mooy liñ la aaye woon ci armal ga nga dem ba aayeetuñ la ko mën nga koo def day ñaari yeweeku nag yeweeku bu ndaw ak bu mag yeweeku bu ndaw bi mooy boo xëysee ci bisu fukkeel bi ñu koy tuddee bisu tabaski ba sànni jamray àqaba boo xësee jaay boo xësee sànni jamray àqaba rek liñ la aayoon yépp aayotuñ la ko ba mu des nag yaar jigéen moom ba tey dañ la koy aaye ak ñu sib nag lat ko lañ ba tey lat ko lañ dañ koy sib rek ci yooyu jamono bu àgg ci araam jigéen nag moom nekk ci araam nga ba tey ba ma ngay def nag tawaaful ifaada soo jàllee nag def tawaaful ifaada te fekk doxoon nga sawaag marwa moom dal nga yeewu ko yeewu ko ba féete kaw mooy léegi amatul dara dara dara li lay aayeeti li la aayewoon ci armal gi yépp mën nga ko su fekkee doxu woon safa ak marwa nag kon boo wëree tawaaful ifaada ba noppi da ngay jaal dox safa ak marwa ñu door ne yeewiku nga faslu li ab dog la fi muharramatil ihrami ci yi ñu araamal ci armal maanaam bu armalee aj baaxum ra daa am yi ñu araamal ci moom ba ba muy yeewiku daañu wax xarrim na nga araamal xale nisaa ci jigéen ña alxufaasa ay gan wakkata fi danga doyloo biloo ci ci kanam ga wal kafay ni ak yaari temb ya min xaa ci jigéen ja takk si fu dana ko war a wuññi takk si fu mooy cosaan waaye takk si fi lamaas ndax way wi daa mel ne moom du moytu mel noonu daanaka lu mu bëgg a daaneele rek lay daaneele li ko neex rek maas danga ko gisaat ay yoon yoon te wees woon nga ci itam yu bare bari jigéen bu armalee dañuy araamal ci moom muur kanamam ak muur ay tengam yaar yooyu nga xam ne bi ñu awra ci moom du leen sañ a muur ni ki sol ay gants wala la xaar ab morso ci ay loxo muy muur teng ya araam na mu def ko kanam gi itam araam na mu jékki-jékki rek muur ko lu mu ci def rek war a fay alamaan daañu wax alamaan ba lu muy doon su jigéen ji bañee nag góor ñi am fitna ci xool gañ koy xool daañu ko may la mu muure woon boppam mu bàyyi ko mu wàcc ba muuraale kanam ga te bañ ko caa pinge bañ ko caa faste waaye bu jëkkee jékki muur kanamam ci loo xam ne rek du bañal fitna góor ña daal di war a fay alamaan bu ko ca pingee wala mu yeew ko ca it daal di war a fay alamaan ndegam nag jigéen moom aayowuñ ko sol lu ñu ñaw mbaa ñu faste ko ba mën a wër ab cër kon moom mën naa takk ab jaaro mel na ne mën naa takk ab lam mel na ne gaalaaj gum daan takk itam bu fekkee du waa réew moomu ñoo koy aaye mën na koo takk ba tey ndax moom aayewuñ ko lu ñu defar ba mën a wër ab cër min rajulin yoon dana doyloo ci góor li loo ci ñeel feeñal kanam nga wër a si ak bopp ba faqat dong bu dee góor nag bu xasee armal dañuy araamal ci moom muur kanamam mbaa boppam daa war a bàyyi boppam di boppu kese kanamam di kanamu kese bañ caa muur dara bu ca muuree dara rek ba mu fegal ko tàngaay mbaa sedd rek daal di war a fay alamaan moom daal mu tay ko ak mu ñàkk koo tey ñoo ci yemoo moom góor gi bu xasee armal ba ba mu yeewiku su muuree boppam mbaa kanamam rek moo xam da ko muure loo xam ne daayis na ko ko muure mel ne kaala mbaa mbaxana wala leneen ñoo ci yemoo rek daal di war a fay alamaan bu ko teyee boole ca bakkaar bu fekkee fàttee tax nag tëye ko woon du ca am bakkaar waaye alamaan bi moom faaw mu war koo defte daañu wax lu mu moom naxu na nga ko aaye ni maa ci lépp loo xam ne xadd axaata wër na maanaam mën naa wër ab cër aw rabata wala mu yeew ko ja da ko baamuwaat rek ndax sësale ko ci yi araam ci góor mooy góor bu ko see armal lépp lu ñu defar ba mën a warub cër moo xam ca nañ ko ñawee la ni ki mbubb mbaa tubéy wala leneen ni ki ab jaaro wala wala ràngoo kurus ci baatam moom daal lépp lu ñu war ab cër rek dañ ko koy aaye bu xasee armal moom góor ba ba muy yeey ko wam na xumaa na nga leen aaye ñoom ñaar ak tiiba gët wal iddihaana akuk diwu wa kullama ak lépp loo xam ne yurafihu dana bànneexal al insaana nit góor a jigéen daa am yoo xam ne bu ñu xasee armal ñoom ñëpp lañ koy aaye ñoo ci yemoo bi mu njëkk wax mooy lat ko lañ lat ko lañ nag bu dee ci yoonu maali dañ koy def ñaar lat ko lañ bu góor ak bu jigéen bu góor mooy boo xam ne boo ko laalee du la taq bu baax du xeeñ bu baax mel ni ward ak yasmin xam ne moom seen xet du am doole du ñu taqe bu baax boobu dañ ko sib rek yam ci waaye àggul ci araam te itam amut alamaan lat ko leen bu jigéen nag mooy boo xam ne boo ko laalee dalay taq bu baax a baax ba noppi xeeñ xet gu am doole moom nag moom lañu araamal ci góor ak jigéen bu ñu xësee armal bu bañ yeewu ko ko ci def rek war a fay alamaan muy góor muy jigéen bu xasee armal du sañ a diwoo dara lu am xet gu neex ndax bëgg rek lu taxal yaramam ak bëgg xet gu neex su fekkee ne nag dafa amee ay xar-xar ci ay loxoom bay tànkam ni ki ko amee sedd moom daañu ko may mu diwoo diw goo xam ne amul xet gu neex ni ki karité dañuy bañ sax bu armalee muy dindi loo xam ne nii du sobe du dara bëgg bànneexal ba kanam dong la mel ni taq-taq boo xam ne du sobe mënees na koo julliwaale da ko cay bàyyi rek bu dee sobe nag moom faaw mu dindi ko ndax du sañ a julliwaale sobe nga xattali xam leen ni ki rey ay teeñ aw nga xalmi zuufri wala ni ki lay wee aw xalqi sha'rin wala wat kawar aw ka nat fi sha'ri wala ni ki xus kawar wattee xus gi ñooyemoo rek muy góor muy jigéen bu xasee armal du sañ a wat genn kawar du ko sañ a xus ngir dindi ko wat gee xus gi ñooyemoo du sañ a lewwe du sañ a rey jenn daaba nekki aw teeñ waxaf natun benn ñaag ci benn tit fii xamlati nekk na ci aw teeñ aw fii zuhrin wala ci we aw sha'ratin wala kawar wa fidyatun jotoo nag fii maa nekk na ci la nga xam ne katura bari na biñ ko aayee lewwe ak wat kawar maanaam dindi kawar ci gàttal mbaa rey teeñ dañuy teqale wax ne teeñ moom bu ci reyee li tàmbalee benn ba ci fukk na joxe rek benn tibub ñam benn tib ci loxoom rek ci ñam ba mu fees moom lay jox miskin boo xam ne gor la tey julit dindi kawar ak rey tey ñooyamoo ci kenn ku ci ne la dale ci benn ba ci fukk kooka benn ñaag rek lay joxe muy alamaan teeñ ya mu rey su xasee ëpp benn wala kawar ya mu dindi ëpp benn day daal di fay rek alamaan bu mat sëkk dindi we muy lewiku nag moom moo gën a jafe ay mbir ndax moom su dindee wenn we ab ñaag dong lay joxe waaye bu xasee weesu wenn we rek day daal di fay alamaan bu mat li ñu tuddee fideetu njotoo daañu ko wax léegi wa in taaddada ndeem limu na moo jibun aji waral taaddadat kon mu limu moom jotoo ga illaa bi arbahin dara ci yent foxilat yooyu defeef ne leen bi fawrin ci ak gaaw wala ci saasay saasa buñ leen nangam ku ko def war a fay fiddiyatu njotoo googu ku ca def yaar mbaa yett it daldi war a def jotoo yu tol noona bu dee yaar nga war a fay yaari jotoo bu dee yett nga fay yett mel ne buñ nee sañuta wat boppam sañuta sol luñ ñaw bu dee góor sañuta lewi ay we moom nag mu wat boppam ba mu yàgg mu wëlbatiku sol lu ñu ñaw ba mu yàggaat mu wëlbatiku lewi ay wexam nga xam ne kon def na yett yoo xam ne bu ci nekk am na fidiyatu te it bokkuñu jamono jum leen defee kon da nga war a fay ñetti fidyatu ndax loolu ñetti jëf la lu may nag mu def li mat yent ci yooyu yoo xam ne da leen a defandoo fa saasay saasa ndegam da leen a sësale defandoo leen day mel ne ku def leen dong nga xam ne benn yoon rek lay fay fidiyatu kenn du wàññi yow mu def yépp mel ne mu wat boppam daldi koy muur fa saasa fekk muy góor daldi sol ay yére yu ñaw fa saasa daldi léegi ay waxam fa saasay saasa nga xam ne yenta ngoog yoo xam ne lu ci nekk day waral fidiyatu mu defandoo leen ci yenn jamono nag benn alamaan rek maanaam benn fidiyatu rek moo ko cee war ndax ndegam dañoo xewandoo ci senn saa mook def leen lañuy yemale aw xaddam wala mu jiital ak saw ba malaan ma xala sirwaali ca tubay ja ba tey bu fekkoon ne dafa njëkk sol mbub mu mag nga xam ne dafa tàmbalee ci kaw ba ci suuf mu door a nag sol tubéy nga xam ne sol na lu ñëw yaari yoon waaye bu jëkk ba yóbbaale woon na bu mujj bi ndax mu mag mi yóbbaale woon na fa ñu sol tubéy ndax mu mag mi ndegam tal na rek mën na ko jullee moom dong bañ a sol tubéy kon nag bu njëkkee sol bu mag gannaaw ba mu sol tubéy benn alamaan rek lay fay ndax lam njëkk a def yóbbaale woon na li mu ca def lu mel ne mu sol kaala laxaal ko ci boppam door jël mbaxana teg ci kaw nga xam ne bu mbaxana may ñëw fekk na kaala ga moom muuroon na fa mbaxana may tegu ba noppi ba tey loolu benn alamaan rek moo ci war aw zannahu wala mu jortu ko ibaaxatal afxaali muy daganaluk jëf ya bu fekkee ne def na ay yëf yëf yoo xam ne bu ci nekk doon na waral fidiyatu waaye daa defoon rek ayut moo tax mu def ko loolu lépp kon benn alamaan moo ko cee war mel ne mu wat boppam gis ay teeñ rey ko wëlbatiku léegi ay wexam waaye yépp daa defoon ne loolu wàññul dara rek sañes na ko def na yett waaye benn alamaan rek la cay fay aw innawaa wala ndeem yéene na ak takraara baamu ga xam dan ci ak tey fa faxala te mu def loolee mu yéene woon ba tey bu fekkee ne def na ay yëf yëf yoo xam ne bu ca nekk day waral fidiyatu moo ko tey xamal na ni moom yooyu dañ koy aaye waaye ba muy armal rek la yéene woon a def yooyu yépp ne man xam naa ne aay nañ ko waaye ñi moom dinaa leen def mënuma ko bàyyi nga xam ne ci yéene ji rek la leen boole waaye ci jëf ji moom da leen a tàggale mel ne ba muy armal xam na ne aay nañ sol tubéy ak sol lu mel ne simis ak sol lu mel ne kaala waaye ba muy armal rek la yéene woon a def yett yépp ba mu tolloo ci def nag dafa njëkk sol tubéy ba mu yàgg mu door a sol mbubb ba mu yàggaataat mu door a kaalawu nga xam ne loolu bu dutoon li leen boole woon yéene ci benn yoon yetti alamaan moo ko ci war waaye ndegam nag yéene ji moom jenn la woon dogoon nañ dana leen def ci jëf di leen teqalee benn alamaan rek moo ko ci war wax ya moom fiddiyatu xalaat tax yii nekk na ci ak tànnloo kasey bi mel ni rëbb xasala mbir moom am na fidiyatu bii nag moom dafa def yetti yëf yoo xam ne mooy tànn bu ko ci neex rek mu def ko muy fidiyatu maanaam mel ni alamaan ci moom bu ñu àggee ca rëbb itam rëbb dañ koy aaye daañu wax lan mooy rëbb ak lan lañ cay aaye waaye moom itam alamaanam buñ ci àggee ak tànn loolu lay doon dañu boole yett ne ko yett yi boo ci def mu baax ñu ne kon shaatun ab gàtt lay doon fa ala topp lu féete kaw ab gàtt aw fa sum wala na nga woor dana xeetam bàyyi faagi ne aw sum wala nga woor salaasan ñetti fan awat xim wala nga leel sittatan juróom-benni masaakiin mudday ni mudday ni kenn ku ne yaari mudd kenn ku ne yaari mudd fidiyatu boo ko déggee rek def lu ñu araamaloon ci gannaaw ba nga armalee moo koy waral moom nag yett yi woo ca tànn def ko mu baax bu la neexee tur deret muy sa fidiyatu la ci féete kaw mooy gëléem aw nag topp ca ab gàtt nag moo ci féete suuf waaye loo ci def rek moom mu baax waaye nag muy gëléem ga muy nawa muy gàtt ba sart yi ñu sart ci tabaski moom lañ cay sart ci tolluwaayu at ma ak mucc ga ci xeet sikki yépp ñoo ko bokk luñ cay wax wala mu war ñetti fan muy ñaari xeet yi bokkut ak nag leel juróom benn miskin miskin bu ne yaari mudd boo jàppee benn mudd liibar nag kon mën nga ne juróom benn miskin miskin mu ne ab kilo fidiyatu boobu nag am na geneen jàppandal gu ci nekk mooy sàkkaluñ ko jenn jamono mbaa benn béréb melul ne addiyu addiyu nga xam ne ñu koy rendee foofa ca béréb yu sell yooyee déedéet ndegam gëléem gi mbaa nawi mbaa gàtt bi fidiyatu rek la moom la neexee bàyyi ba ñibbisi sax defi ko ci sab dëkk woor nga ñetti fan tam saa yu wooree ñetti fan rek mu daldi baax leel ga juróom benn miskin yi noonu la sàkkaluñ ko wenn waxtu ñu ràññeel bu ko defee rek mu baax xanaa ñu fàttalee ne bu ñu ne aay nañ góor bu armalee mu sol mbaa mu takk dara lu mën a war ab cër danañ ko may nag mu wut tamra boo xam ne da koy takk ci ndiggam dana ko wër waaye bu ci sart yi ñu bëgg a wax dajee daañu ko ci defal ndimbal alamaan du ca am sart bu jëkk bi mooy kamra bi da koy takk ci deru yaramam du ko takk ci kaw teraxlaay la mu teraxlaayoo ñaareel ba kamra bi dañ koy sàkkal ay bouton yu koy téye wala buukal waaye kenn du ko faste ñetteel ba nag mooy la tax mu def ko di def ca ak njëggalam bi nga xam ne da koy soxlawoo jëfandikoo bu ci yetti saat yi dajee daal daañu ko may mu ware kamra boobu kamra boobu nag bu ko takkoon ci përëgam mbaa ci ab luppam def na lu ñu sib alamaan du ci war nag wam na am na nga tere xal insaani ci nit xat xa shajari dagg garab ya min xaramin ci xorom illa sanaa ndare lay dooru wal idxari ak idxar mel ni daañ ko wax ceeb màkka dafa am lu ñu tuddee xorom ak lu ñu tuddee xel na xorom mooy fi nga xam ne dañu bañ ku fa rëbb di bañ ku fa dagg gàncax goo xam ne yow ci sa bopp defoo ko fa la bokk ca xorom ja moom nga nekk ci armal ak nga ñàkk ak nga ñàkk nekk ci armal ñoo yemoo danañ fa aaye ku fa rëbb di fa aaye ku fa dagg xeetu garab xel ja nag mooy fa nga xam ne bokkul ci xorom ji su fekkee nekkoo ci armal moom mën nga faa rëbb mën nga faa dagg garab mbaa gàncax na nga ko bëggee ba tey bu dee ci xurum ji loo xam ne yaa ko saxal mbaa yaa ko fa jëmbat ba tey saa yoo ko bëggee dagg mën nga koo dagg ba tey boo bëggee dagg aw yet wala socc it ba tey mën ngaa dagg yet wa mbaa socc ba ba tey boo bëggee defar ab néeg wala ab làkk daañu la may nga dagg garab ya fa nekk waaye lu dul loolu rek doo sañ a jekki-jekki dagg dara ci garab yi xorom yi mbaa ca gàncax ga lu may nag lay dóor ak li ñuy wax idxir wala idxar lay dóor moom dañ koy faral la fajoo lu bari bari daañu may ku ko dagg foofu boo ko soxlaa du wàññi dara idxar ba tey dafa amee xet gu neex mel na ne buñ dee denc seeni néew daañu koy dagg di ko ca def moom it kon may nañ ku ko dagg boo ñëwee itam ci xoromi madina li nga waxoon ci xoromi màkka loolu nga cay wax dañ koy ormaal duñ nangu ku fa dagg genn garab wala buddi fa dorop mbaa lu deme noonu lu may loo xam ne yaa ko fa saxaloon wala nga jubloo def foofu ab néeg mbaab làkk wa yum naaw def na tere as saydu rëbb li bar yi ñeel ko jug jéeri fil xarami ca orom ja aw saydu muhrimin wala rëbbu aji armal ku fas armal aj mbaa xumra dafa mu yeweku moo xam nga ci biir xurum ja moo xam nekkul ci biir xurum ja dana araam ci moom mu rëbbu maanaam muy jéem a jàpp aw rab woo xam ne yàlla da koo bind te dëkkal ko ci suuf si bu dee lu yàlla sàkk te dëkkal ko ci ndox ni ki jën mbaa lu ko niru moom mën naa napp jën ak rek wépp rab wu dëkk ca ndox ma waaye lu yàlla bind dëkkal ko ci suuf si moom bu xasee armal booba mu yëweku na ko moytoo jàpp